mbokk yi bàyyi xel euh, senego point comme senego tv tey nag ñu ngi fii ci Touba euh, nekk itam ci euh, fi nga xam ni moo di ñaari pënu euh, nekk ci ngiraan yéen euh, ndox mu bare bare bare moo fi am comme niñ ko seetloo fu bari ci Touba ci gox yu bari rawatina ndaamaatu nga xam ne ñoom moom ñu ci bari ci ay kër danoo génn tey nag fii nga xam ne moo di ngiraan yéen ndox mi dafa bari bari ba nga xam ne mi ngi jégg ci tali bi di jëm sax ci geneen wetu ngiraan yéen gi ci ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi danoo noon taxaw ci kaw tali bi daal koy baare ndax danoo gis ni ndox mi def leen sonal te gis ñu genn kilifa goo xam ne ñëw na fi leen wala genn kilifa goo xam ne ñëw na fi ngir euh, xool ak anam bi nga xam ne la ñëwee tey nag bi ñu baaree bi gis nañ ni police bu ndaamaatu ñëwoon na fi ñoom itam fexe waxtaan ak ñoom ba dindi circulation bi mu doxaat waaye tëréwul ñoom itam ñi ngi fi taxaw ca wax nañ ni bu fekkee ni saafara amul daañu yëngu-yëngal daañu baariwaat tëli bi ci leen di dëkk ak ñoom donte wax nañ leen ni préfet mi ngi ñëw ñi ngi xool ba xam préfet dina ñëw wala du ñëw waaye lu ci mën di am mooy ndox yu bëri na lool ba am ñoo xam ne sax jotoonoo génn seen i kër ñi ngi jël seeni i euh, euh, ay matlaak seen i bagage dem bu ko defee am na ci kenn ci ndaw yi koo xam ni bëgg nañ koo dékk suñu micro ci Senego TV yi moom itam mu yëkkati ay kàddu sëñ bi tur nan la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Malick Touré lañ koy wax maa ngi dëkkee fii ci bassin bi ci Kër Ñang waaw may wax ne fii benn problème rek moo fi am ndox bi damaa dégg ci ñenn ñu ne xamuñu fu ñu fu muy jógee ma ne ku leen wax loolu da leen di nax bu leen kenn nax maanaam ndox mi mi ngi jógee ci bassin bi nga xam ne moo nekk ci diggante marché gare bi ak Kër Ñang tey jii moo débordé ñetti fan ñetti yoon la débordé ci ci lu matul 20 jours waaw ndax d'abord samedi ci guddi débordé na bañ a samedi ajjuma ji nga xam ne moom la ñu suba la maa ko daaru xulus débordé waan na ba démb débordé waan na ci guddi ñetti yoon débordé na ko ñett débordement yëpp fa la ma fekk maa ngi image yi mu leer nañ débordé yim débordé nangu kër yi bassin bassin bii fi mu dool nii mooy jox secteur yi ndox fii ba ñu nga ndaamaatu gi ngay wax yoonu daaru ba ngiraaneen gi bassin bi moo leen boo demee boo demee ba jub bassin bi da nga gis mbedd yi ko ñu ko xottee daaneel kër yi daane bâtiment jàmbur gis nga bassin bi li ñu ko yand attanut ñun ñëpp ñun ñëpp oui ma ñun ñëpp ñoo bokk benn jàngoro muy bassin bi moo moo fi war a jógee bassin warut a nekk ci biir dëkk il faut ñu xam loolu bassin bi dafa nekk jirigi dëkk bi ba pare te pompe yi évacuer ndox mi dafa néew doole xaar xaar leen xaar leen wala maanaam maanaam maanaam maanaam bassin bi bassin bi ala kulli ali dana déborder les kan mooy responsable bi responsable bi bassin responsable inondation bi ONAS la il xam loolu ONAS la Touba ca kanam tamit biir ndax man li ma lay wax nii dama ci am preuve dégguma ko faruma ko Laasana Gagny Sakho directeur ONAS ba fi nekkoon lii moo tax ñu wàccee ko ndax alerté woon na lii ci kanam sëñ bi nee woon na branchement yi nga xam ne Touba Ca Kanam ñu ngi koy branché bis boo nga xamante ne nii branché nañu ko ci rosi ONAS bii jëm ci bassin bi dëkk bi dana fees deram ndox dana déborder kenn mënu ko téye loolu ba mu ko la noppee am jàmm ci Sénégal lañ fexe ba wàccee ko fal ki leen ko nangul biñu falee ki nga xam ne moo leen ko nangul keroog bi mu ñëwee ci sama kanam ba mu jëlee kaddu maa jël kaddu nee na lépp man maa ko waral moom nangu na ko moom directeur ONAS bii fi nekk to yi nga xamante ni mooy yóbbu ndox mi dama lañ ko bëgg a wax diamètre bi il faut ñu xam ko ndax ay canal mooy indi bii jugee ñaari étage bii jugee gaar bu ndaw ay ah, oto mën naa jaar ci biir jàll ay tuyau ñoo koy évacuer di ko yóbbu Daaru Rahman 315 la ak 400 ak 600 ci ay canal yoo xam ne nit mën naa jaar ci biir di ko di ko yóbbu loolu lu ñaaw la voilà gis ngeen kon euh, jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Ngiraaneen ñu bari ci ñoom yëkkati nañ ay kaddu ñaaw la mbir mi nu mel ci ndox mi nga xam ne mi ngi fi ñëw bu fekkee ne am na ñeneen ñoo xam ne war na noo mën a ñoom itam da leen koy jox ndax yaakaar na am na ñoo xam ni seen i yàqu na ci biir am na ci ñoo xam itam yoroon ay ginaar yàqu euh, ci biir ndox mi euh, ñu ñàkk ci xaalis bu bare bare bari bi tur la man Gilaay Joob laa tudd Gilaay Joob maa ngi uuf jumaa waaw sama kër fi mu toll tamit ak fii fii nii ba ca ba ca fii nii ba ca jumaa ja amul kenn ku fi des ñëpp génn nañu man maa fa des fi mu toll tamit nii te fi mu toll tamit nii li ma fa dese nii ah jëng ki may téléphoné ni ma léegi ne ma léegi bëti bi bëtiment bi ndox mi mi ngi koy ronu xam nga li ma la kon man xam nga maa ngi génn fi mu toll fii bu fi jógee damay dem préparé ji génn dégg nga fee moom fi mu toll ku fa ñëwut mu ne sula wax nu mel waa diggante foofu ba ngeraaneen li wër ngeraaneen mbuubeen fii yëpp ba kër ñang maanaam moom kenn mësul fii yëpp lépp yëpp a génn amul ku fi des fii nii amul ku fi des waaw ba fi ginnaaw mbaar yeeg amul ku fi des ñëpp a génn am na ñoo xam ne xamuñu fu ñuy aw am na ñoo xam ne ñu ngi dem seen këri mbokk lu mu xat-xat dégg nga am na ñoo xam ne si fi mu toll fi mu toll bâtiment boo ci dugg bagage yaa nga fa Cheikh Diop euh, Cheikh Diop euh, chef suñu chef de quartier Cheikh Diop xam këram gaa nga ne kenn desu fa moom moo fa desan euh, euh, jigéen ñi ñëpp dem nañ démb kër ñu saali ga kër Serigne Saliou ga ci jànnatu fa la jigéen ñëpp dem dégg moom amul benn pexe léegi fi mu toll tamit nii moom bañ na bañ bañ waaye mujj na dem ci suba waaw moom njaboot ga waaw ba tey mbokk ñi ngi fii ci Ngiraaneen euh, gis ngeen suñu ginnaaw nit ñi ñi ngi yor seen bagage di génn am na benn soxna boo xam moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo génn euh, ñu soxna tur nan la Gée Mbay da bokk ci ñi nga xam ne jël seen bagage génn génn nañ ñun ñëpp a génn te ñi génn mu ëpp na ñun ñii ñun rek ñoo mën a taxaw fi waaye ñi mbooloo mi ñi ci ñi fi nekk ñëpp ñëpp génn nañ ñu dimbale ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba sëñ Touba rek lan am nag moo da bi sëñ Touba defee lii tamit danoo kontaan waaye nag nañ ci boole rek ndimbal nan di ñëw tëjee lii di sotteeku di ñëw ci sunu fii ndax bëgg na noo màggal tax amuñu fu ñuy màggale xalaatuñ ko amuñu fu ñu demee ci wanag amuñ dara ñoo ngi nii mënunoo sangu mënuñoo def dara njaboot gi lañu rawale toog ci kër yi di xool kon nag ndimbal rek lañu bëgg ah, sëñ Touba mi am dimbal nag te ku ko ñaan mun dimbal la mu nu dimbale ci barke Xaadimu Rasuul ci kattanu yàlla baax Muhammad jërëjëf. voilà muy euh, kàddu yoo xam ne yenn ci soxna yi ñoo ko yëkkati fii ci euh, Ngiraaneen muy kàddu yu am am solo voilà bu fekkee ni itam waaw sëñ bi. waaw Alioune Diagne da ngaa deelee ginaar wala deelee woo waaw man moom deeloo ma ginaar waaye suñ kër tamit fees na del instant bii nii gars yi dañoo mujj yéeg ci kaw terrasse bi instant bii nii te lépp ndox mi moo ko waral parce que muy ñëw te xamoo fenn foo xamante ni foofu lay jugee gars yi ñu ngi nii di génn seen bagage ñoom ñëpp ñoo ngi génn lii bu yàggee sax mën na daaneel miir yi parce que gis nga ko ndox mi ñi yëpp mi ngi jugee mi ngi sonn nan màggal bi mi ngi jub ñu ngi tàllal loxo nit ñu dimbale ñu te yàlla tax parce que nag lii ay mënoo am ay gan ñuy jóge fa sori wala ñëw te màggal gi jub si na ba pare nañ ñu dimbale ngir yàlla loolu rek mooy wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatulah problème bi bi sëñ bi wootee njàngum euh, xasida yi ñun dañoo mobilisé koñ bi ñëpp dajaloo def fi loo xamante ne bi la def si jumaa ja ñun def nañ ko fii moo tax bi xéwal gi ñëwee kenn ëpp wuñu si bokk na ci ñu ci ma bëgg nag ñu xam ne dañoo dégg ñu ne dañoo wax ne téeméeri kër ñoo yàqulu fii ci Touba fii ma nekk nii lu ëpp junniy kër ñoo génn. fi nga am na si ñoo xam ne génn nañ mais amuñu fu ñu jëm parce que amuñu génn kër goo xam ne mën nañ faa dugg ba léegi ñu ngi ndox mi sàcc yi di dugg ci kër yi di sàcc dégg nga sàcc yi dugg ci kër gi sàcc yi dugg ci kër yi. moom dana moom da koy dugalal moom di sàcc ay téléphone. di ko def di dugg ci kër yi sàcc ay télé di jël ay yére di jël ay ay loolu maam loo yaakaar duñ ko jël fi mu ne nii ñu ngi koy jël fi kenn koo xam ne taxaw na te fu ne gouverneur ak préfet dégg naa dëkk bi foo dem nañ fa mais fii ci Ngiraneen liggéeyuñ fi waxuñ dara lu jëm ndox di jógee fii ci bi di jógee Kër Ñang di bal di ñëw fii am na ñoo xam ne ña nga dëkk ba kaatamaam jaara ba démb génn ñoon te tey ji loolu moo tax biig ba léegi ñun feeñ fanaan rayante nag pour lii ñu ko ak nuñ ko mën a saafaraa loolu rek lañ bëgg ma xam ah dégg naa am na ay moto pompe yu fi ñëw ñun moto pompe yooyu gisuñu ko gisuñu ci dara am na loo xamante ne bii tamit ñu ngi koy prévoir pour dëkk bi mais loolu kenn ñëwut fii di wax ak ñun loolu moo taxoon tey ji ñi taxaw fii ngir di ko naqarlu pour ñu fekk ñu fii rek la suñu problème. Ah, waaw bii lañ ko njëkkee woon bii ci guddi lañ ko njëkkee woon ñëw baare tali bi ndax li ko waral mooy gis ngeen ndox mi ni muy jàllee fii jàll bu am doole lay jàll ndox mi xam nañ ne taw ndogalu yàlla la loolu amul problème waaye am na ñoo xam ne après 48 heures bi mu tawee ci la ndox mi soog a nangu seen kër loolu day wane am na lu ci xew ndox bi jaarul fi mu war a jaar ñun de ay nit di violence duñu lañ xam nañ li ñuy def duñu yàq chef de quartier bi nga xamante ne nii moom lañ dëkkal fu émission bu mu dem wala fu mu ne day dañuy ñun ndax jàppale guñ koy jàpp ak bëgg jàpp guñ bëgg jàmm waaye lii c'est trop am na ñoo xamante ne nii génn nañ amuñ fuñ dëkk am na ñoo xamante ni ndox mi bu tey lay soog a nangu seen kër te ba tey du waa waa sapeur pompier ak police ak ñëpp ci yem amul ku la mën a wax fii la ndox mi jógee xamuñ ndax réseau assainissement bi la xamuñ réseau bi nga xamante ne ni moo yor ndoxum Tuubaa bi la xamuñ fu affaire bënne mais yéen ñi baaraatari bi da ngeen jàpp ne moo tax ndox mi jógee kenn mun laa tegal baaraam ne fii la ndox mi jógee cause bi cause bi cause bi xool sa waay mi waa Tuubaa ca kanam la woo ñu ne ko bassin beeg li ko war ndox génnewu ci ba tey kenn xamu ci foo xamante ne ni fii la ndox mi jógee moom lañ bëgg mu dem ci terrain bi di wër moom day technicien daa xam fu ndox di jógee nañu dimbali wax fu ndox mi jógee ñu fàtt gaa ngi nii ñëw na màggal gi ay ay vingt vingt jours ci des ba xoola famille yi nga xamante ne ci biir ndox mi lañ nar a ak leneen ak leneen suñu gan yi xam ne ñëw suñ xaaju matériel dañ koo sàcc wax vraiment lii dafa metti metti na trop te ji du préfet du kilifa du kenn koo xamante ne ñëw na ngir massé wu mel na mu jóob jaafi jaafi moo fi ñëwagun te ci la commissaire dooga ñëw defal ñu tey ñu wax mooy bu réaction jëm ci bi ñu yëngalee mennum commissaire moo fi ñëw ak mu jóob joobe bi ñu ñëwee calmé ñu bi ci guddi noonu moo ma tey bu nee ne wax ñu ne euh, euh, préfet mi ngi ñëw bu fekkee préfet ñëw na ok bu fekkee préfet ñëwut ñu baaree waat tali rek ñun moom fii lañu fanaan te duñ sonn duñ daw duñ daay ndax amuñ lu ñu def amuñ mënuñ cee sonn parce que li xew mooy mënuñoo liggéey mënuñoo def dara ñun ay sinistré la ñu ngi nii ci terrain bi amul problème waaw fii ba suba wala ginnaaw suba ñu ngi fii ci tali rek dañ koy réglé ngeen jëf yéen ñi bàyyi xel Senego TV senego point comme ni ñu ko waxoon tey suba euh, bi ñu xëyee ci Touba euh, fi nga xam ne moo di ngiraan yéen danoo gis ni ndaw ñi danoo wàccoon daal di baara tali ndax gis nañ ni euh, ndox mi dafa bari loolu ba dugg négocier ak ñoom ba mujj gi ñu bàyyi waaye nag nee bàyyi neen waaye tëriwul bu fekkee ni kilifa yi waxuñu daañu yëngu-yëngal euh, daañu indiwaat itam li nga xam ne mooy ndaw ñi ñëpp daal dajawaat balewaat tali bi euh, bi ñu xëyee démb nag gis nañ ni euh, sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ci déclaration bi nga xam ne Cheikh Bass Abdoul Khader Mbacké def na ko ñoom seen bopp bi mu defee déclaration bi wax nañ ni sëriñ Mountakha dafa yëkkee dafa yëkkati cinquante millions da cee da ci maanaam da cee ëppale lool lool lool lool ndax ndox mi dafee bari kaddu génn nañ comme ni ñu ko defee woon tey suba Sénégal ngeen àndaloon fii ci Touba Ngirane euh, ci kaddu gi Ahmadou Bamba ci caméra bi euh, Cheikh Bey mbokk yi jërë ngeen jëf di leen jox dig daje beneen yoon incha allah